parrainage bi yeexul ku nek nang ko organiser rek la parce que ñun mo nañ joxe un lot de 5000 après joxewat 7000 après joxewat 8000 joxewat 9000 joxe 10000 mais comme ñun dañuy door musaf door benn coup rek yobbu ardo dañu yobbu 12000 tay legi nak mu dess parce que amna ñu bari ño xamni xeyna dañu joom sen dañuy remplir sen fiche ak ño xam war nañu indi wat bu ko defé ñuko matali wa 12000 lañ jafta dama ci yokku lu leer dañ ne des parrainages sûrs vérifiables et vérifiés Nous loolu nous Nous Nous ku fait Nous gis mais encore une fois le may wax ci parrainage nous, dañ ko gëm nous gëm c'est un moment d'animation politique mais c'est le moment aussi nous compter Nous nous, compter nous compter Nous combat li ñu war a mottali ñu mottali ko bu desee ñu mottali. dañuy waxante dëgg Sénégal lañ dëkk dakaar lañu dëkk man toog naa sama kër nit ñëw ne dafa may jaay ay parrainage loolu la ñu war a bàyyi ñun loolu la ñuy ŋaññi parrainage dafa war a wóor mu wóoral sa ay militant la ñu nga compter leen ñëw teg ko si kaw loxo Macky Sall parce que ñu ko ñu bañ di ko nax ñu xam ni Sénégal lii la ñu am bu fekkee ne jàpp nañ li ñu am matul encore une fois pour dem élection pour gagner premier tour. ñu def Touba mottali parce que nag parrainage bi day wane tuuti li nga xam ne mën nañ ko am si élection yi donc nañ koy def mu leer mu wér moo tax muy préciser que ñun en tout cas loolu laa santoon sama ay ndaw te defe naa loolu la ñu def léegi nag mën nañu juum yan saa ci ay fichier yooyu mais li ñu def lépp farlu nañ si àndal def loo xam ni lu wóor la teg ko ci loxo euh, président Macky Sall à travers son la commission nationale. objectif man defe naa baax na parce que euh, c'est vrai que jël nañu Médina ba paré mais dañu dem aussi si gox goxaan yi biir Ndakaaru même laal nañ touti Sénégal parce que xam ngeen ni suñu plateforme bi dafa laal fep am nañ ño xamni ni leen wooyee hors zone c'est-à-dire ñi genn génn Médina nañu indi nañu sen parrainage suba inshallah allah dinañ ko compter motali daal dina jëbbal ko ki nga ko war a ndax Amadou Ba amuñu benn problème benn problème xeyna sama communiqué bobu lañu gissone ma def communiqué mais effectivement man damay politique yeen say il faut ma tokkaa suuti wax Amadou ne ko lii mooy réalité sur le terrain defe naa dégg na ko di si ginnaaw gi gis naa ko waxtaan nañu comme d'habitude Amadou sama mag la kenn mun ñu féewale man ak moom. c'est de la politique man sama militant sama bopp dañuy dal sama kaw man man mii dañuy dal sama kaw si biir suñu ay instance dañuy dal sama kaw dañuy dal sa kaw seen bundu di dal sa kaw amili ak keneen ak keneen donc loolu mooy politique politique boo si nekkee tu deviens un homme public tu dois xam nga man damay nekk nit koo xam ni vraiment je suis un démocrate euh, ku ma gis. ngay wax ak nit du tax man wax naa ko ba tey fii nee naa leen bu leen gis mukk nit di wax ak un opposant sax ngeen defe ne relié na parce que nit ki am na ay relation peut-être yoo xam dañuy doxante di si diggante nit ñi amul problème am na situation dañ ko expliquer mais nag man sama ay nit ñi ngi fi te incha allah prochaine manifestation bu ñu ko organiser di nga xam ne la woon sax nekkatul bu ñu doublé wul triplé nañu.